salaamaaleykum patriote yi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp ak képp ku bëgg Sénégal bëggoon leen ñëwal ci benn domaine sama xol dafa xaw a fees tuuti nag président Ousmane Sonko ban ko jàppee si la xam ni sénégalais yi ay vrai gor lañu gor pur ndax moom ba ñu toogee affaire yi metti trop ci ñun moom moo doon taxaw matin midi soir di wax ba Macky Sall affronté ko teg ko li mu ko teg mais jour bi mu ko jàppee. ma commencé ci man si laa njëkk a def sama si laa def sama vidéo taxaw ni man maa ngi soog a dugg nekk bokk Pastef tey maa ngi soog a dugg Pastef taxaw jàkk ñun ñëpp ñu taxaw jàmbaar waa Macky Sall chapeau à vous tous yéen ñëpp ngeen jug maintenant ay gaynde aussi képp kuy patriote ak sympathisant boobu ba léegi kenn noppaluwul ça veut dire Sonko xam na ne ay gor la ko séqal xam na ni gor yi gor yi rek a mën a changer système bu bon bi nekk fii fu mu tëdd tey dina toog xolam sedd xam ne ay gor la ko séqal te du nu mës a bàyyi ni naa match bi xam nga kañ lay jeex te ma ñaanaat leen patriote yi bàyyi leen diversion yu ndaw yi ñu leen di envoyé kee wax na ngeen ni ree jàppal bàyyil nekkuñu foofu ngir yàlla war a suul yi 25 février 2024 foofu la match bi di tasee arbitre siffleegul fin du match concentré wu leen ma ñëw ci impôt domaine de vrai traître maa ko wax bu dee am na ñu fay liggéey bokk Pastef bokk APR ak fu nu mënta di bokk c'est des Bassirou Diomaye Faye dina nekk ci kaso bi ci lu mu bind bind lu ndaw ngeen ngeen def benn show bu ndaw deux jours de grève libéré Bassirou dem jege jege voilà bàyyi leen ko fa sénégalais fàtte na ñu ngi ci kaaw Sonko li ngeen bàyyi fa Bassirou Diomaye ci lu mu bind lu ndaw ngeen di yéen a bokkoon liggéey un bon agent di def contrôle di def lépp Macky sàll xamul xamul loolu ay bind ak jàppal bàyyil grève ngeen war a def yéen ñëpp ñu ne impôt domaine grève bu amul are chaque semaine ngeen def deux trois quatre jour de grève ba Macky Sall bu kenn def benn contrôle Macky Sall nu mu nekkee yéen a ko ci bàyyi te vous êtes des traîtres et vous avez trahi Bassirou Diomaye man maa ko wax te bu génnee na xam ay nitam na xam waa impôt domaine ñu fan ne ñëpp c'est des traîtres waroo leen fi sax bàyyi Macky Sall am fit di duggati seen 18 fii ngeen ko waroon régler mais vous êtes des traîtres politiciens yu bon ngeen ma ci rappeurs yi nit dof ngeen bàyyi ci kaso bi génn di def seen i concert rek yokk seen làmmiñ di wax rapper yi yéen ñëpp laa wax A à Z je vais même parler des musiciens ñëw tout le monde heure bi waroon ngeen régler seen problème bu yàgg musiciens nga xamante ni vous êtes libre de dire ce que vous ñu génn seen domaine képp kuy musique bu mu dugg sa domaine dëkk bi ko moom mooy ku mu neex wax ci dëkk bi mais yéen ñëpp ngeen croiser seen bras toog di xulle nit dof ngeen bàyyi ko ci kaso bi ay Abdou Karim Gueye xurum xaak anam mi ngi ci kaso bi ba léegi vous n'êtes même pas bu ngeen génnee ci mbedd yi mel ne ay man des fois damay xool musicien naa man ñi leen di déglu sax ka nit da ngay am fulla ak fayda ñu bëgg la ana Cheikh Omar ak politiciens yi yu bëri ban jàppee Ousmane Sonko wax ma ñi ne ci opposition bi tey yor seen làmmiñ toog naan kandaa kandaa leen wax leen ma sénégalais ñan ngeen ci gisoon ba nu jàppee Sonko kan à part waa Pastef ak patriote yi ñoom seen biir rek nga gisoon ñuy xataraay boobu ba léegi opposition bi ñu bëri toog di bind balaa maa dee ku ne toog sax naan je condamne je condamne je condamne allez vous faire foutre avec votre condamnation Macky Sall doit pas doit pas doit pas faire benn nit exception dañ koy wax dëgg ku ko gis dañ koy wax mooy dàmbuj deux mille vingt et un ba suñu jonni tey ñëpp a yaakaar ni Pastef sax la bokk man sax dama naan est-ce que ci cadre Pastef yi chaque jour il n'a jamais arrêté de défendre président Ousmane Sonko wax dëgg bi le seul pers la seule personne bi ma gis mooy Dame Mbodj ba léegi ba léegi nii nii nii candidat la mais ba léegi ma ngay reyanteel président Ousmane Sonko ba ñu ba mu ba mu dem fi di di ko reyanteel plateau télé bay ñibbi këram ñu dóor ci otom sept bal naroon kaa rey ndax présence Ousmane Sonko kooku am na am na sax ñuy naan Pastef laa bokk Dame Mbodj leen ëpp mérite fuuf enseignant yi ba Macky sàll defee kumba am ndey kumba amul ndey kan moo taxaw du daam mbóoj moo taxaw grève ni grève bu amul arrêt il faut ñu jox leen cër il faut ñu respecter leen te ba defee xëcc xëcc xëcc Macky Sall ñëw na wuy si leen Macky Sall noonu ngay def ak moom yéen waa impôt domaine yéen rappeurs yi ak imaam yi nga xamante ni ñoo fi newoon naan dañuy jéem a wax anañu Macky sàll bu jëlee ña ne ca bopp ba placé leen fenn dootoo dégg kenn ŋaañ. ana président consommateur yi sénégalais lambda yi sénégalais yi yéen prix yi ñuy yokk matin midi soir matin midi soir ñan ñoo leen war a kaasal ñan ñan ñoo war a ne na dëkk bi taxaw kenn du bouger kenn du liggéey oto dara du dawati ndax dafa ëpp nanu wàññiwaat prix yi seen ña nekk ca kaw la Macky Sall jël casé leen sénégalais lambda yi di bëgg a dee yeewu leen xam ne Ousmane Sonko bu ngeen ko joxul dëkk bi mu changé ko système bi Ousmane Sonko ak ak ñun sénégale yi bëgg Sénégal ñun ñoo ko fi mën a jëlee indi Ousmane ko teg ko fi tant que ñii ñi ngi fi nii la mag Sall di dëkk ak sénégalais yi ñene ca bopp lay jël ñene ci suuf ñëpp ni nem consommateur sénégalais la lam daay ku lekk li ñuy waxal Ousmane fi ne di xataraayu patriote yi di jug muy organiser ay ay manifestation ay grève ak lu ne anam ñu garre ko wax ma ñeneen ñan a fi def fii kon xam ngeen ñi ci des ñëpp man c'est pas des vrais balaa maa dee ñu génn naan wi si on donne le pays notre programme notre programme allez faire foot avec votre programme programme da tëdd nelaw ba élection di jege rek nga ñëw programme danga nga koy préparé depuis cinq ans avant nga koy préparé di kaw wan ni sénégalais maa ngi ñëw comme ni ko Ousmane Sonko di wax maa ngi ñëw maa ngi nii di ñëw toog ba mu sotti ngeen ñëw taxaw ba nit ki baliser terrain bi yëpp ngeen ñëw taxaw naan wi xam naa ne juge bi résultat bi mu joxee keroog yéen a ngi bëgg a dee ñu bëri ngi bëgg dee matin midi xam naa ne sëriñ yu ne sax yéen a ngi koy seeti pour xon Ousmane Sonko pour sax bu mu bokk vous n'avez même pas dëkk boo xamante ni y'a que des traîtres loo jiite ba sénégalais ànd ak yow rek nga mbas sénégalais yi téye sénégalais di leen mbas matin midi soir ñu ñëw ci le faux ministre de la jeunesse bi Macky Sall tegaat oui Macky Sall da ngay teg comme jàpp nañu mille quatre cent jeunes ci kaso yi rey nañu soixante jeunes. jeunes yëpp ñu ngi jël gaal yi mel ne sabar di gën dëkk beeg yooyu ah nee na ko yow ministre de la jeunesse bu baax nga dama lay conduire place boobu na jeunes yëpp dee rayal ma ñëpp dàqal ma ñëpp dëkk bi way ñooñu la Macky soxla genre Pape Malick Ndour sa faux type la nga xamante xamul sax lu ministre de la jeunesse xamul nan lan koy gérer boo ñëwoon émirat yi ma jàngaloo ko tegal la kay naan la nii ak nii la ministre de la jeunesse di mel nii nii ngay gérer jeunesse ñu ñëw ci enseignants yi ak ñu ñëw ci étudiants yi enseignants yi Sénégal déjà ñun am na nañu cinq cent treize écoles booy xool ci village établissement public yu amul mur clo clôture école yoo xamante ne da ngay classe yi ngay seen ne di dox ni Sénégal cinq cent treize war nañ toll foofu ñun Sénégal te village village yooyu man moom ma jaaxal ñoom ñooy voter Macky Sall waxtaan leen ak ñoom ñu yeewu tuuti am sept cent quatre vingt cinq école yoo xamante ni amul làmp làmp am fa làmp mais classe xanaa boo fa toogee sax bu tàngee ba tàng ak léegi fi monde bi nga am nekkatuñu les années quatre vingt war na am sax ventilo ba mënul am kilim pour élèves yi nombre ba fay nekk yëpp sept cent quatre vingt cinq classes yu amul électricité Sénégal te yépp a ngi ci àll bi de te àll boobu nee na ñooy votel Macky Sall ak Sidiki Kaba dem ay tàmbaak yooyu te ñu ngi bëgg a dee ñooñu ñoo koy voté enseignants yi Sénégal yëpp ñiy jàngale ñëpp cent un mille quatre cent treize lañu manqué nañu huit manqué nañu huit mille encore à peu près huit mille yu ñu soxla am na classe yu bari dafa tëj ñi ibbeeguñu ba léegi senegal classe yu bëri tëj ibbeeguñu ba pare am système bu ñuy def ñoom mooy système multigrade maanaam. classe yi dafa manqué ba daa am ay village côté yoo xamante ni dañuy jël CICP boole leen benn classe kenn di leen jàngal ñu jël CE1 ce leen benn classe kenn di leen jàngal mi ngi Sénégal te ku ko weddi nit ñi xam naa di leen ko leeral ci commentaire yi amaat beneen système bu ñu naan système double fixe ñii dañuy jàng suba maanaam man CP laa ne ñooy jàng suba waa ce un jàngoon mi ngi Sénégal fii yëpp ci village te commencé na ñëw ci communes yi ngeen ni système bii ngeen fi bàyyi ñii nguur gi ngeen fi bàyyi te ki doon gérer jàng bi la fi Macky Sall teg nee na ko lu bon loolu ngay def voilà looloo baax ci Sénégalais yi ñu kooku la fi tegaat dambuñ nag na nanu xam ne enseignant yëpp ba mu mettee dëgg ba Ousmane Sonko kaasee indi solution pare dambuñ mooy la seule personne bi woote woo mbooloo taxaw grève grève ba ñu leen seen salaire yéen ñëpp tey ku ci Macky Sall yokkal salaire ci barke dàmbuj la président Ousmane Sonko nag nañu taxawaat ak traître yi ma leen wax yëpp bu ma ko doon lim du ma fi jug ay Fadilou Keita ana éleveurs yi ñoom ñëpp a yam tout le monde des traîtres bàyyi ñoo xamante ni jaayoo drogue jaayoo defoo dara seulement dangaa bind rek ñu jàpp la ñëpp croiser seen bras xaama yam foofu tey